non am nga yaaya moom ñu koy doon liggéeyal ñu bari même problème la am ak ñoom moom comme euh, bu liggéey yow tuuti léegi mu am ay mu daaxala bu la génnee ci liggéey bi lu bari moom dina la jàpp tëj la wala yeneen xam naa yooyu la woon rek te loolu moom ñu bari la dal Gambie fii euh, kër boo dugg nag am na fa victime ci loolu waaw loolu xam nga amoon nañ fi TRRC mooy Truth uh, and uh, uh, Reparation Commission bi bi gars yi toogee nit ñi nga xam ne ñoo ko daan reyal ñoom seen bopp génn nañ ñoo toog wax ak commission bi wax ne dëgg la ñoom rey nañ ay nit ci Yaya Jammeh moo leen ko santoon loolu gisoon nañ ko fi wax nañ yëpp pare nañ léegi ñoo ñu joxe nañ seen report daal. waaw xam nga rek comme comme ni ki ñëpp la rek te ñun sax mën nañ wax alhamdulilah parce que ñun jotuñ si ñàkk suñ bakken am na yenn journalistes yu bari ñoo xam ne ñoom reyoon na leen waaye yàlla def ñun euh, ñu ngi dund ba tey waaye euh, métti woon na rek waaye euh, yàgg na bu loolu xewee ba tey mën na ten years fukki at Um, report bi submit nañ ko to the president uh, président Adama Barrow fu mu nekk nii ñëpp moom la ñuy xaar pour moom mu dal di def li nga xam ne moo nekk ci report bi waaye loolu defanguñ ko mooy dina am yenn sort daal yoo xam ne xam naa war nañ leen yóbbu uh, ci ay court ñu àtte leen waaye fokk naa moom la government bi defanguñ ba tey nit ñi tam ñu ngi laajte lu tax defanguñ ko waaye ñoom ba tey tontoonguñ ci loolu uh, astu lan moo tax defuñ ko. ñoom foog man nañ ko mun a baal parce que nga lii du ñoom ak government rek. moom ak nit yi la tamit léegi moom su ko government baalee nit yi nga xam ne ñooy victime yi ñoom mën nañ génn yóbbu ko koot xam nga boobu government tamit du ci mun dara soo xam naa nit ñi yëpp dañuy dëkkloo ngum seet ban yoon la government bi di jël ah, buñ jógee ci loolu nit ñi tam mun a xam nu ñuy defee. wal nit ñi ñu ngi wax bi nga xam ne mosuñ ko woon am fii eh, kenn dootul woon wax si léegi gis naa ne wax yu bari na. Euh, koo waxal mu wax ba wër la nag saaga la ndey teg ci te kenn leen wax dara euh, président Adama Barrow ci boppam amul luñ ko dul yëkka te boo ko ko yëkkee kenn police du la jàppa demoo fen so foog naa liñ doon xeex mooy woon démocratie bi te démocratie bi li ci gën a jiitu mooy freedom of expression euh, nga mun a wax li nga xam ne moom nga xalaat loolu am nañ ko dëgg la nag moom am na yu bari yoo xam ne génn nañoo séntu yooyu yooyu nag ba tey xaw na euh, métti comme dund bi métti na boo ko seetee loolu àddina bi fu mu ne fu nekk la waaye ñun tamit dañ jàpp ne suñ nguur yi euh, ñoom tamit war nañ see mun a gën a puus euh, pour def mu gën a yomba tuuti loolu am na fi affaire courant bi nit ñi ba tey ñu ngi wax ne courant bi cher na trop yooyu yëpp nekk na ay affaires yoo xam ne ñu ngi ciy séntu Adama Barrow mu dal di ci def ay jël si ay jéego. Euh, pour mu xaw a tane am na tamit les bureaux yi office yi ñoo xam ne ñu ngi fa nit ñi dañ yaakaar ne nekkuñ di liggéey euh, ñu yaakaar ne ñu ñu tamit war nañ leen a jël génnee leen waaye ñooñu yëpp ñu ngi fa yooyu yëpp bokk na ci ay wax yoo xam ne nit ñaa ngi koy waxte yaakaar nañ ne Adama Barrow war na see mun a def dara. Euh, comme si tabax yi dangay xool ne Yaya Jammeh bi mu nekkee woon fii nit ñi ñemewuñ woon tabax. parce que man liggéey naa ci nguur bi am na temps yoo xam ne ministre ñemewul tabax kër di tuxu waaye gis nañ temps bi baro léegi ministre dafay woo ñëpp sa ne leen damay tuxu loolu amul woon kon léegi am nañ loo xam ne am nañ freedom ci loolu te gis nañ tamit Gambie ni nga xam ne dëkkuñ fi euh, ñu ngi sànc foo foo dem léegi Gambie ñu ngi tabax ay kër so léegi moom loolu bari na trop. gis nañ cross euh, cross dresser bi kii ñëw sol yére jigéen ne moom euh, cross dresser la xam nga yooyu nit ñi xale yi dañuy gis ci internet bi rek muy Nigerian yi muy fu nekk dañuy gis ci internet parce que am na benn Nigerian bu nekk internet kuy def loolu koo xam ne àddina bi ñëpp a ko xam ràññee ko soo xam naa ki def lii man euh, bi ma ko gisee dama foog ne keneen kuy copier la rek. xam nga xale yi dañuy gis dara si internet keneen ñëpp follow ko ñu dal di bugg a def loolu euh, bari na moom waaye àddina bi moom fu mu nekk nii moom euh, yëpp euh, benn la daal même ñun mi nga xam ne suñ doom yi ñu ngi dëkk Amérique ñu ngi dem school yaa ngi am problème yi xeex ak internet bi lu ñu fay gis xamoo ko école bi lu ñu fay jàng xamoo ko nit ñu ñuy taseel foofu li ngay jàngale ci kër gi àddina moom léegi yëppal la ci moom dëgg la nit ñaa ngi ñëw fii te sécurité bi surtout moom la nit ñi gën a amal lii euh, amal interest bu bari lu nit ñi mun a ñëw daal na government make sure sécurité am bi nga xam ne ay sàcca ay dem rob nit ak ak ay fetel yooyu noonu bu ci amul rek moom di nga gis ne dina xaw a pour nga wax ne nit ñi du ñëw sa dëkk parce nit ñi léegi dañuy tukki rek. ñépp wax nañ ko ñu ne waaw gisatuñ nga wax léegi léegi su dara xewee ñu ne faatu waxul waaye xam nga tamit àddina bu fekkee ne man bokk naa si ñi xeex beneen nguur bañ fi jógee ba ñooñu am nañ si ndam. xeex boobu am nañ ci ndam parce que jàmme dem na te liñ bëggoon démocratie am nañ ko fu mu ne ku la neex nga wax wax naa la ko léegi nga xeex boobu ba boobu jeex beneen nguur ñëwati nga ne da ngay jox xeexati waaw ba kañ parce que tamit da ngay xool lan ngay xeex xeex doo jóg rek ne waaw nguur a toog dama koy xeex foog nga calculer li ngay xeex xeex dafay am stratégie léegi boo jógee xeex Adama Barrow si kaw lan nga koy xeex loo bëgg a wax yaa ngi koy wax loo bëgg a def yaa ngi koy def bu la neexee sax doo wax ak aadama Baro te loo soxla si dëkk bi da koy am jàppuñ benn bunta tëjuñ benn bunta pour kenn ku nekk li nga am yaa ngi koy am léegi ma ñëw duggati ci beneen xeex boo xam ne du ci mun a gañe léegi xeex bi nga xam ne am nañ ci ndam boobu noonu def dafay dafay dem dafay génn ci mémoire nit ñi damay ñëw dugg ci loo xam ne xeexoon na jàmmede boobu doxoon na waaye ba ma xeexee beneen xeex bi boobu demoon parce que da ngay calculer bu baax nga seet looy doo jóg rek ne waa Adama Barrow ñëw nit ñaa ngi wax ci moom am nañu ko bëggut opposition yi bëgguñ ko wala ñoo xam ne xëy na gisuñ ci seen boppa bëgguñ ko nga dal di dugg a xeex xeex du noonu de xeex yombul te surtout xeex nguur du caaxaan parce que xeex boo xam ne la xeex bu dul jeex la man ba ma commencé woon xeex boobu mënuma noppalu ko na jour chaque jour loolu di ba dimanche damay xeex nekk ci internet bi di wax nekk ci pression bi sa doom yi nekk fii doo am jot doo leen tal taloo sa bopp taloo dara ay affaire yi ay ut jëkkër sax wala ut ay xale yu góor yi ngay waxal sa taloo ko xeex rek ngay def loolu nag kenn mënu ko continuer boo xeexee kay bi yàlla may la benn ndam ci benn bi ci des kay man kenn du ma citizen Gambia am na euh, presque deux millions nit ñeneen nit ñi tamit ñoom it nañ jóg xeex àddina noonu la. su ma dara loo xam ne dafa war a tax ma war a jóg di ko xeex. xeex yuñ xeex Yaya Jammeh gisuma ko am na yoo xam ne moom bu amee damay dem ba ca moom wax ak moom man am naa accès si moom su doon aw ma accès si moom dinaa toog maay bind xam nga taami jàmmee ñun amuñu woon accès boobu noonu pour ñëw wax soo waxee ñu rey la am na noo doon waxee ñu rey la nga bind loo xam ne ñu jàpp la Adama Barrow nag mu nekk nii man su ma gisee loo xam ne dama foog ne déedéet du nii appointment téléphone laay jël ma woote bureau ma ne dama bëgg a gis président ñu ne ma ñëwal musuma woote nag ñu ne ma déedéet su ma wootee ñu ne ma ñëwal su ma demee mu toog ma toog ma ne leen bu kenn ñëw ñun ñaar ñooy wax tey ñu ne baax na ñun ñaar ñu toog ma wax ba pare ma jóg dem léegi lan laay dem xeexiwaat si mbedd bi <laughs> su ma ko mënee jot wax ko li ma koy wax. xanaa président Adama Barrow kay nguuram bi du moom rek am na ay nit yu mu àndal léegi kay moom mënul toog sa su waree signé sa ne leen may leen ma ma daw xool Macky Sall ba président Macky Sall sa ndax am na jot boobu. yow nga am dëkk réew bu mel ni Sénégal nga war a rakle foofu nga toog amee yeneen réew yu ndaw yi nag salon ku wax rek ku bugg a signé dara rek mu ekkati téléphone woo la loolu moom da am na jot bi xam nga loolu moom ay wax la lu nit ñi di wax rek dëgg dëgg nag moom ñun mii ñuy liggéey ci media bi man am naa ay collègues Sénégal ñoo xam ne bu dara xewee dama leen di laaj ma waxtaan ak ñoom loolu nit ñi dañ koy def waaye loolu miinut ne ñooñu ñoo lay ronal sa media house man damay wax ak media house yi foofu Sénégal bu news amee damay woote foofu yenn saa yi ma am leen lu ma xalaat damay wax ak ñoom waaye loolu miinu ne ñooy ron ma su suma network bi déedéet xam nga nit ñi moom dañuy ñaawal wax rek loolu moom du ñàkk waaye man fooguma ne président ki sàll sax am na jot boobu nga toog nit ñi nekk seen téléphone bi lu ñuy def seen dëkk di la woo di la laaj dinañ ko laaj nag xalaatam parce que moom nag am na expérience société ñi ñëw léegi depuis euh, Guinée Bissau ba Sierra Leone ba Gambia ñoom dañ fekk moom mu toog xam naa loolu rek lay nekk waaye foog ma ne Macky dina toog Sénégal di di ron ñun suñ dëkk bi fii góoma loolu déedéet doo mënul nekk pour <laughs> président Adama Barrow am na ay nit am na ay advisor am na ay nit yu muy waxal am na full government cabinet waaw loolu xam nga économique ñoo leen fa indi mooy bi euh, soldaar yi Yaya Jammeh demee ñu bari ñu wax ne wóolu wuñ soldaar yi euh, ñëw loolu ba président Barrow indiwu fa de économique ñoo leen fa indi te loolu moom you know nit ñaa ngi wax ne foog nañ ne bàyyi naaw te or na ma ne 2026 élection bi xanaa boobu buy jeex rek dina fekk gars yi nañ dem su ko defee ñu ni tamit ñu liggéey suñu ay soldat parce que loolu tam dafa neex te dafa baax tamit ñoom tam ñu engage leen soo or na ma ne nguur bi dinañ seet si yooyu parce que ñu ngi ci sécurité secteur réforme te xam naa bu loolu paree yeneen euh, économique ñi fi nekk nañ leen bàyyi ñu ñibbi I think it's cordial foog naa ne relationship bi is very cordial um, lu dee nekk problème lu bari transportation de nekk you know léegi-léegi time boobu jàmbe ne téye nañ féeri yi bu camion yi dugga bu lii ak lii loolu moo daan nekk problème waaye bi loolu weesoo fooguma ne léegi am nañ fa any problème because woon dañ daan dem time jàmme uh, Sénégal dañ la daan taxawal rek sooy dawal oto dem Dakar jógee Banjul dañ taxawal di seet sa oto waaye léegi de géej nañoo gis yooyu parce que man lu bari tali bi laay jël parce que xam nga flight yi moom dangay dañuy taat rek euh, lu bari oto laay jël waaye euh, du ma gis ñu am problème boobu léegi soo foog naa ne léegi moom tane na bu baax. wal li fa am léegi nii is very unfortunate kenn bëggut ko man génnoon naa wax naa ci ay samay wax euh, bi ma ko waxee xam nga rek moom euh, bi ko yàlla defee ñoom waa euh, Pastef amatul sax parce que léegi dissolve nañ ko am nañ ay nit yoo xam ne ñoom dañ foog ne nguur forcé la ak tamit saaga ndey moo la koy jox gis nga booy def politique dafa am lu bari loo xam ne dañ ci war a bàyyi sa xel te soo waxee ñu ne parce que Macky lañ faral man musuma génn fenn ma ne leen ne maa ngi nii taxaw fii makki laa faral moo tax may wax lii lu loolu damay wax rek li ma gis ak li nga xam ne moo mun a nekk nguur soo ko bëggee jël da ngay naxante ak nit ñi même suñ euh, musicien bu mag bi fii Jaliba Kouyaté woy na ko mu ne politico ñoo yaayaa mu ne ngeen naxante dangay ngay naxante ak nit ñi ba nga am li nga bëgga Ousmane sonk ba mu génn see ba ma ko gisee first time foog ne kii am na future ci politique waaye Asta ni mu ko defee dafa yàqamti woon dafa yàqamti wala dafa am ñoo xam ne dañ ko doon puus naan ko da ngay dem forcel demal soo defee noonu rek mun nga bañ a toogaat sa sa li nga xam ne moom la nit ñi gisoon ne xëy na kii mun na nekk future leader sax du ñoo amaat ba pare ànd ak ñoo xam ne ñoom saaga ndey la ñuy def loolu dafa garaaw nit ñi seen carte nga bëgg seen seen vote nga bëgg a soo bëggee voté nit kay mënoo koo saaga ndey mu dem taxaw si naaj bi jox la kartaam loolu kenn du ko def so ñoom ñoom loolu yàqal na leen Gambie nag nit ñi divided over it mu am ñoo xam ne ñoom lañ àndal am na ci dëkk bi mu am ñoo xam ne tamit dañ foog ne euh, ñoom euh, Pastef nuñ doon defee feyaawut ak nguuri Macky parce que dañ leen tegoon pression bu bari si kaw lan jógal rek man ma toog loolu war ko woon jar ñoom munoon nañ def ndànk jël seen time naxanteeg nit ñi ba Macky time am jeex mu dem ñoom ñu ñëw taxaw élection buñ taxawee mënoon nañ win waaye fu mu nekk nii man même kilifa yu bari ñi nga xam ne ñoom lay waxal Sénégal ñi nga xam ne mag lañ dañ ragal dañ may ne ñii hii kenn du wax ñii hee saaga ndey te kilifa yi nag dégg la yuut si ñoo bari de gàmbee Sénégal Sierra yoon yuut si ñoo uppa ñu ndaw ñi wante tamit kilifa yi ñu ci kër yi de te ba tey am na ñoo xam ne suñ waxee seen doom yi ne leen nañ leen saani fii fa la ñuy sànnee waaye yow boo toogee ci dëkkat ragalloo ñëpp tiital ñëpp ba pare nga def koo xam def sa bopp koo xam ne yow kenn du la laal <laughs> loolu am xam nga man loolu laa ci gis loo xam ne même Gambie ni fii ñu koy support dama si euh, back and ak ñoom boo waxee nag groupe bi ñu génn waaw cage yi waaw lii yi waaw lile loolu nag man damay wax ne euh, nit ku nekk li nga gis seen kër moom ngay saaga nit man am naa ñetti doom yu góor man suma doom yi duñ saaga kenn parce que liñ xam rek mooy yaay ju liggéey yeewu suba liggéey toppatoo leen liñ soxla ñu am ko waaye ku dund sa kër nga gis sa yaay góor bi su génnee góor gi dugg yow dangay ngay fone jigéen yëpp noonu lañ mel loolu nag mu ñoo nekk loo xam ne ñoom foofu rek lañ jàpp saaga nit ñi ndey ku wax kenn du ñemee wax léegi su nit ñi waxul nuñ lay sànnilee karta man foog naa ne liñ dissolve nii euh, euh, naka la gaay tudda Pastef xëj na bu gaay yi waree ñëwaat war nañ si jàng na gaay yi jàng ne euh, politique du forcé doo force kenn da ngay naxanteeg ñoom Gambie nag ñoo am nañ fi ñu leen ñu ànd ak ñoom nag bari nañ fi sax waaw loolu laa wax parce que li tax ma wax loolu ñoom déglu wuñ suma wax bi xam nga dëkk dafa am loi dëkk boo gis dafa am loi gis nga Amérique li xew nii ak président Donald Trump suñ ko waree tëj dañ koy tëj de loolu du président Joe Biden loolu loi dikk bi la li tax ma ko doon wax mooy soo demee court bañ la sentence bañ gis ne dëgg dëgg kii lim def du noonu ba court bi gis am na luñ gis yow ne dañ lay tëj léegi buñ la tëjul woon ëllëg si suba buñ jàppee keneen ku ñuy tëjaat kenn du nangu parce que li xew nii du moom ak président Macky Sall moom ak nguur lii bi la naka go lii bi euh, loosi la loi dëkk bi la moom ak jooci la moom ak court bi la léegi court bi suñ demee wax ñu tëj man de dama gëm ni Sénégal seen court bi dafa indépendant nda indépendant tut xanaa su ngeen ñu waxee ne ñu seen court bi wóoluwu leen ko court bi indépendant tut waaye liñ xam ci Sénégal mooy judiciaire bi is indépendant soo su fekkee indépendant na kon suñ ne dañ ko war a tëj dañ ko war a tëj xanaa moom mooy kan man moom man am naa yéena su même suma xarit même suma mbokka bu fekkee def na loo xam ne dafa rong damay wax ne bu dee luwaa bi jàpp na ko nañ ko tëj ah man su ma defee dara luwaa bi jàpp ma du ma expect ñu bàyyi ma noonu kon keneen bu ko defee ku koy tëj kenn du ko tëj man foofu rek laa doon waxee eh, eh, ñoom xëj na niñ ko déggee la xaw ma ni niñ ko déggee eh, saaga ndey yi ñëw waaye bañ saagee dama ko wax ñetti yoon waat woon leen ne man saaga ragal loowu ma ragaluma ay saaga parce que du ma tax a fen saaga loolu laa la wax ku nekk li nga gis seen kër ñoom ñuy saaga noonu seen kër liñ fa gis loolu la ñuy def yow da nga dégg ban ban doomi nit ku tekki wala ban xale bu tekki nga gis muy saaga <laughs> ñooñu saaguñ léegi ñuy saaga ñoom kay léegi nii maa ngee déglu euh, kii naka la tudd faal ki dee watte FM oustaz imam la xam Fall mu ngee wax mu ne Youssou waxoon na ko seen dundin moo leen neexul xam nga sa dundin bu la neexul yow da ngay toog di mer rek di saaga rek. loolu la rek man de am naa ay doom te duñ saaga kenn am naa ñaari mag yu góor dund nañ ba génn àddina mosuñ saaga kenn waaye Ousmane waaye lim doon woote lim doon woote nag ci dëkk bi loolu noonu incitement of violence la loolu foo ko def dañ lay téyaa ah. moom sa am na sens parce que taxaw na lu yàgg sax ba tey mu ngi wax suñ waxee nga ne nit ñi génn loolu la ñuy ooyee incitement of violence loolu kenn waru ko def ñun bi ñu doon xeex euh, ci diaspora bi dama amoon ay admin yu bari ñoo xam ne si page bi Facebook yoo xam nga ne lu bari dañuy am ay admin yu bari soo amee media house am na si ñoo xam ne dañ daan bind na nit ñi génn ci mbedd bi saa ma ko gisee yépp lay dindi dama koy delete man maa comme suma page la te xam naa ne loolu boo ko defee dañ la ci war a jàpp loolu baaxul kenn du woote loolu kenn du génn naan nit ñi génn leen ñu dem yi loolu kenn du ko def so li mu def noonu crime la digganteem ak xale bu jigéen bi kooku moo génne yóbbu ko koot digganteem ak euh, euh, ministre bi ki mu defal diffamation Mame Mbaye kooku moo génn moom itamit dem yóbbu ko koot léegi man looloo ma jaaxal même fu mu toog Macky Sall Macky Sall Macky man de mosuma dégg Macky wax turam xaw ma nag da waxangum na ko de waaye mu suma ko dégg sax mu wax turam nit nag tamit da ngay nekk nit am na yoo xam ne sa nit ki bu lay avoid bàyyi sa affaire tudd la bàyyi ko waaye yow foo tollu ne bàyyi foos force foog nga gis nit ki nga yàqal ko wàccee ko ne foog mu dem yoo nga toog kenn du toogee noonu de kenn du toogee noonu. léegi fu mu nekk nii nag gaa yi dem dellu si drawing boot bi ñu jàng ñu xam ne politique du forcé politique du saaga ndey politique du xeex loolu ku koy def même international partner yi nga war a liggéeyal sa kenn du la ñeme kenn du liggéey ak yow parce que yow da nga violent miinal xale yi lu ndaw lu nekk dañ leen jóg dem ci mbedd bi moom bu toogoon xale yi def ko loolu ndax dina ko neex waaye fu mu nekk nii gisuloo bokkatul moom léegi foog mu xaar. dina xaarati five years bi rombate beneen five years buy ñëw dina fekk yeneen nit pare nañ jóg nañ te moom léegi nit fitna la ko nit ñi di gisee moo gaayam yi ñoom ñëpp man de noon laa leen gisee man ñu suma suma TikTok bi parce que man ñi may follow TikTok ñu bari Sénégal lañ dikk Dakar ñi may follow social media sénégalais yaa ngi fa fu nekk dina ñëw nag tey su interview bi génnee dina ñëw saaga waaye xam nga man du ma saagantee kenn boo ñëwee saaga nga dellu ci àll bi mooy ma block la delete la nga dem noonu rek laay def ak ñoom du ma wal di wax rek ne Gambie ak Sénégal moom benn la bi ko yàlla dogalee eh, ñun ñëpp benn nit lañ eh, li ci des rek mooy sénégalais yu bari ñëw takk jabar Gambie Gambien yu bari tam dem takk Sénégal intégration bi mu gën a dëgër daal fa naa loolu moo ci des te loolu léegi ñu ngi koy gis eh, gis nañ ne loolu mu ngi am te di di koy soriwuñ démb rek maa ngi koy wakkee ne man ne ko su ngeen fi takkee weekend bi ngeen di ñëw fii léegi biir week bi ngeen liggéey Sénégal ngeen nekk foofu Eh, loolu la rek waaye nañ leen gën a eh, def jàmma xam nga ñu def jàmm ci diggante bi parce que booy laan Gambie Sénégal ngay romb eh, soog a laan fii boo génnee Gambie Sénégal même suñ village yi fii sax foo génne rek dugg a Casamance Gambie ak Sénégal benn dikka la sénégalais fi dëkka dëkkuñ fenn ci àddina almost 800000 sénégalais ñoo dëkk Gambie fii soo fii lañ gën a bari du Amérique du du Spain du Italie du fenn fii mooy number one fu sénégalais gën a nekk kon euh, ñu defante ndank rek ñoo xam ne ñu ñëpp benn lañ ñu nekk benn bàyyi saaga yi bàyyi fitna bi si noonu daal jàmm am. jërëjëf ok thank you.